jërëjëfati mbokk yi way ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu di leen jaajëfal di leen delloo njukkal ndax boobu ba léegi yéen a ngi wéy ànd ak ñun di ñu bàyyi xel si suñuy page Facebook di leen wax ne Biorahma yëkkati na gàncax gi yóbbu ko ci beneen lëkkaloog ak bio santé foofee ca France. ngir yombal leen yëf yi ba ku nekk Paris wala ku nekk France nga mën a jëfandikoo suñuy produit moo xam huile baobab moo xam savon baobab. moo xam savon carotte moo xam savon coco muy produit yoo xam ni moo nga ca bitim réew ci noonee da ngay daal di woote si 0 751 09 63 36 mooy numéro boobu ñu leen bindal soo ca wootee incha allah foo mën a nekk dinañ la wuyu wax la nan ngay def ba mën a am produit bio naturel bu bio rahma di leen jaajëfal waaye di jaajëfal waa bio santé ba nekk foofee ca France di leen ndokkeel di ñaanal jàmm gu gu sax jërëjëfati mbokk yi way ànd ak ñun